Macky Sall. Ousmane Sonko. ak Macky Sall. <laughs> Euh, moom la Sénégalais yëpp jamono ñoom ñoo teel politique gi jamono ji. dèjà Sonko. Uh-huh. ak Macky Sall dinaa ci sawar a wax lool. non foog foog nga wax ci ndax ñooy Ligue des champions lañ nekk te ñeneen ñi moom euh, ñi ngi ci championnat bu ndaw a ndaw bi ñoom waa nekkul Ligue des champions championnat mm-hmm. benn match la rek. te match si nañ quatre-vingt-dix minutes yëpp VAR moo des. VAR moo des. waaw quatre-vingt-dix minutes yi man Waly man maa ko wax te kenn du ci tegaat baat. mooy lan quatre-vingt-dix minutes yi. bañ ko joué waxoon am na lu ma la ci jotoon a wax waxoon naa la ne dama ne bërët wax ak samay kuus wax ak samay rawaan wax ak samay jinne ñu ne ma génnal heure sangam nga xool ñaari fas yi lay romb. damaa génne ne tëll sama buntu kër ñaari fas yi romb ma gis Macky Sall sol yére bu weex tal ak coppite bi sokola Ousmane Sonko romb à droite Macky Sall moo nekk à gauche man maa ngi seen diggante ma ree sama droite bi lépp lu ma ci mos a gis day leer te Sonko moo féete droite moo moo féete sama droite bi ba fas yi rombee laata ñoo xam ne nit la. fekk romb nañ ma booy dem Ousmane Sonko mu ngi sol lu weex tell lépp tout tout blanc fas bi mu ngi xonq Ousmane Macky Sall fasam bi dafa weex te fas bu weex ku ko gis xam ne du rawante ak lu mu rawut mu baax li ma lay wax ni fas bu weex du rawante ak lum rawut sol lu weex taxut nga am Sénégal mais sol lu weex mënu laa xañ Sénégal it bañ dawee ñu ngi njëkkante sele bi boo xamante ne lépp ay bâtiment la mais sele bi boobu foofu la yem ku fa jiitu yaa moom réew mi. mooy pale waaw mun na nekk ma daw dañ ma bàyyi si ginnaaw ñu ñëw si sele bi yoon bi fekk ma taxaw foofu. Macky mu ngi ànd ak garde corps bu mag te kooku mun naa wax turam mais du ma ko wax waa garde corps boobu moom moo téye laxaab bi. taxaw mu ngi rawee Ousmane Sonko lu ma deux heures de temps teg na fa le nit mun na fa teg lewal ak deuxième ak troisième ba mu jeex. moom ak tarxiis sax. très bien Macky door a euh, ki euh, Ousmane Sonko door a agsi mais Sonko ba mu agsee am na lu fa xew. moo xew foofu waale foofu damaa aal ba téye fas laxaa bi Sonko bi. mi waaw ma ne ko yëkkatekul si kaw. ngir sa jëmu may na la ko sa taxawaay may na la ko mais sa ñaani waajur may na la ko te waajur bu jigéen la waxuma ku góor ka de mais ku jigéen ka laa wax ba pare ma tegaat ci ne ma gëstuwaat euh, Macky ne ko def nga fi lu kenn defut Sénégal maa ko wax maako ko ne depuis Senghor def nga fi lu kenn defut am na dëkk yu bëri am nañ ay tali kon mun nañ wax ne Sagne mbambara lam doon wax sëriñ dina fi sëriñ benn sëriñ dina fi ñëw benn sëriñ dina fi ñëw def fi lu kenn defut tali dinañ bari courant yi dinañ bari ndox mi dina bari mun nañ xool ne ñun borom xam-xam yi duñ junj Sañ Bambara daa junjoon mais man du ma junj damay wax direct. fi nekk direct laa nekk. Uh-huh. waaw yaa très bien ok Macky ma gëstu ko ne ko. bu yëkkati ku waatal mm-hmm. képp ku jàng arxuraan gëstul. baqara bu naasi amayata bu naasi lépp loo fi wax waxoo juróom-ñaar wax nga fi ñett saay boo buggee ñett yooyu dam da ñuy gëstu saay boo ñu gëstoo jël réew mi xanaa troisième mandat nga wax foofu noonu waale junj déggoo li du ma junj troisième mandat laa la wax dama ne troisième mandat man maa ko wax Macky Sall saay boo buggee troisième mandat Macky man waali man wax naa la ne boo ñu gëstoo gëstu bi téyel sa alal lépp bu ñu indil dërëm mais ñu jaar fañ jaaroon ak yow 2012 man waale boo ñu gëstuwaatee gëstu bi mooy lan maanaam Sénégal jàmm lañu fi bëgg ak salaam non violence. mais mais mais mais foofu dag may may mais parce que boo ne jàmm lañu bëgg ak non violence troisième mandat boo leen ko xamee coow li danaan gur du jóg dara coow benn coow du am. 2012 Ablaye Wade di coow li gisoon nga ko. buñ ko ko nangu buñ ko nangulul Ablaye Wade est-ce di Macky Sall. bu Ablaye Wade defee coow 2012 ba mu waxee ne troisième mandat. ab coow bi fan la joge ña ñi doon def coow fu joge du si Macky. Hmm? est-ce violence bi am si diggante Macky ak Sonko am na foofu. amut non boo ma man maay tontu sama bopp amut. yaa ngi dégg amut violence laala wax. mais dama la waxaat ne la Ousmane Sonko am waxut kenn génnal nga yàq Ousmane Sonko waxut ne rey doomi jàmbur yi Ousmane Sonko waxut ne taal leen dëkk bi Ousmane Sonko ñi ñi mu àndal ñi ko bëgg dëgg ak ñi bëgg Ousmane Sonko falu ëllëg bokkut ak yàqkat yi Macky Sall la ma ko fa wax patt pataram moo waral patt pataram bii su ngeen gisee Macky Sall. mosuma gis Macky Sall te man ñaanuma yàlla mooy wax si tele pour Macky Sall ñëw si man wala mu yónni ay ndawam mais Macky Sall saa bu nekkul si dëgg dama ko koy wax na dem Macky maag moom ñëw dëkk Mariam Faye Sall sama yaay moom boot na ko bu muy nekk xale bu ndaw muy Njaay Senghor Kaolack sama yaay bi ma jur boot na ko sama dafa xam sax dafa mos Macky da ko maanaam Macky mosut indi rafetaay ma sax jox ko sama yaay wala mu jox ko keneen soxlawuñu ko ñu man sama ñaq bopp laay dundee te samay waajur ñoo ma tax a jóg nguur nag saay bu ma joxee dinaa jël ngir lan du ma si dëgg ba du ma wax si télé nga ñëw si man ne lii laa bëgg lii laa bëgg waxal nii defal nii defal lee def du ko def mm-hmm. bopp réew mi ki fi war a toog leer dafa leer nañ loolu moom foog nga may ñu ko mu nekk exclusivité xanaa ki war a ñëw 2024 bi waali waaw euh, boobu agaguñ fa si dañoo nekk si débat débat bi ñu nekk débat politique la débat politique la ndax si instant yi kenn mënatu def kenn mënatu fee def débat bu dul pour débat politique benn bi ci topp mooy ba ma leen waxee loolu ba pare sonko fas bi ba si li mu sol lépp dafa mujjee xonq cur. boobu lan. xonq boobu ba ma ko gisee léegi mu ngi depuis booba sax di wax ne Sonko dañ koy def nii dañ koy def ne diggante mag Adji Sarr Adji Sarr wax naa leen ne maak moom dañoo bokk mais man si ñi ko njëkk a contre man Adji Sarr man waale si ñi njëkk contre Adji Sarr man ci laa bokk dama wax sama waa kër ne képp ku ma gis muy défendre Adji Sarr di nga génn sama kër abal ma wala bu ma looloo jox ngay lekk di naan dootuma la ko joxati nag Adji Sarr lu muy def nii du sutura bu amee sax moom wormaalu jigéen ñi Sonko tiire ko fetel sax mu dee foofu moom mu nangu mu maanaam mu waddu cëram moo ko gën mais li muy tuumaal doomi jaamuur bi xamuñu dëgg laam du dëgg du ma dugg si débat boobu mais aji Sarr pulo yi mooy yaayam pulo Diouf Fabi Sarr mooy papam waaw sama bajjan Xadi Diouf yërwaago moo jàngal yaayam pulo woy kon déjà côté boobu duma ma fa dugg mais ba si Mame Mbaye Niang ba mu ñëwee foog foog ñu ñëw foofu noonu ci ci ci ci procès boobu nga xamante ne mook euh, Ousmane Sonko la Mame Mbaye Niang mi ngi ba Mame Mbaye Niang ba mu porté plainte Ousmane Sonko man dama ko nangu man waale si naka man dama ne dama yar samay njaboot yar sama bopp yar yar képp ku ma nangul yar bi mooy lan waxoon naa la ko man du may tooñ bugguma koy tooñ du ma ànd kuy tooñ duma liggéeyal sama xam-xam kuy tooñ mm-hmm. euh, ñu ne ma si naka ma leen Mame mbay ñaa dañ koo tooñ ti nag am na toñar bi am na tooñ bi mooy diw da laa tuumaal Abdou Fall dafa tuumaal waale te Abdou Fall man ma ma wóolu sama bopp porter la plainte ab bu ma la bu ma wóolu doon sama bopp duma la wax ne kaa ñu dem devant waaw justice nga war a teg preuve bu ma leeree da nga war a teg preuve damay bàyyi loolu mu sedd bañ koy woo bañ ko woo troisième fois lañ ko woo foog naa si troisième fois bu lañ ko atte si ginnaawam léegi si première deuxième lan moo tax moom tegut profilaire ñu koy renvoi di wax ne dossier bi ñii ñii di wax ne dinañ xool li ñii di wax ne dinañ xoolale dama ne justice su Sénégal ba si avocat yi ñoom lu màcc seen màcc seen xam-xam toll na millier boo xamante ne bu doon Senghor moo dekki woon dina lay wax ne beneen justice waru jóge feneen ñëw di ñuy atel lii nekk suñu réew mun mënal nañ ko suñu bopp warutoon a jël benn avocat si biti jógee feneen ñëw di xeeb lu ay avocat am waroon na xool sax si Clédor nga xamante ne meilleur avocat Afrique ci la bokk Clédor lu mun ta ate kooku mënu ko ate wala kooku bu ko mënee ate na ko yemale réewam man d' siloolu sen fa loolu je pas d' accord si loolu si sama xam-xam nag laay waxe beneen bi ci topp Mame Mbaye Sonko ma Mbaye Niang Sonko amagut Mame Mbaye Niang Sonko amagut jeexagut book waaw mu ngi leer nañ nii laa ko gisee nii Mame Mbaye Niang barke Seexu Tidiane Mame Mbaye Niang Sonko jeexagut te Mame Mbaye Niang saay bu demaatee ak Sonko si yoon noo Sonko bu yeboo képp ku topp si moom bu yeboo ngeen jël réew mi yëpp xam ne ñi ñoo ko moomandoo bu leen yàqati fii dara xam ne Sonko bu boobaa bu buñ ko buñ ko kalewul si candidat dinañ ko tëj ci kaso bi loolu lu ci pexe. sarax bi mooy jox leen ay. pexe waaw agaguma si sarax ba. yéene ma ko sonk ndax wax naa leen man jeune laa te jeunesse bi dañ koo bëgg. sonko sonko sama fukki sama fukki xale kenn rek laa ci bokkal baay ay ñoom duudu ñoom moodu ñoom ñëpp ay étudiant lañ ñoom ñëpp sonko lañ man sama waajur damaa ñëw juddu fekk leen ñu képp ku ñëw rek ñu ànd ak yow si loolu si yar boobu lañ ma yar moo tax mënu ma man faruma fenn mu ku fi yàlla teg kooku laa àndal ku ñëw si man nag ma gis sarax bu ma la war a digtal wala nga bañ a ñëw si man dinaa ko def Mame Mbaye Niang li ma koy ñaan mooy diggante mag Sonko lu bu demaatee poroblème dina amaat te problème bu amee si kaw Sonko lay ëpp ayib bi te benn kilifa diine mënu koo gàllankoor ba du ayib du ci am benn saltigi mënu ko tax mënu tax ayib boobu du am waa bu demee bu am ba pare nag laa wax balaa muy am nag lu nekk mun nañ ko saafara Mame Mbaye gis naa moom tamit mu am naqat bu metti si digganteem ak soxnaam ak ku dendaaleem boo xamante ne da koy woon carrément ne da koo bëgg te maam si problème bii nii problème diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye problème boobu foofu lay juddoo foofu lay sosu jee bu projet bi demaatee de deux li may bañ mooy man duma ma tuumaal ni te indiwuma preuve Mame Mbaye Niang xamuma ko xamuma Sonko nii laa leen gis ma xam ne ay citoyen lañ kenn ku nekk mun nga kaas sa droit morom si sa kaw morom mais Mame Mbaye Niang nay jéggale bu dee julit la dégg naa am muy làkk alxuraan julit dangay ngay jéggale Ousmane Sonko nee sax euh, liñ koy fay ci daara yi la koy yóbbu jox leen ko sax gëmuma loolu xam nga lu tax gëmuma loolu waxuma du ko def de mais bu ko defee sëriñ daara bu ko jël sëriñ daara bu ko jël si yahud yi nga si si si si euh, si yéefar yi nga bokk yéefar yi nga bokk directement laa la koy wax sëriñ bu ko jël jox ko nit mu lekk ko si yéefar yi nga bokk barke Seydina Mohamed waaw xam nga lu tax nga ciy bokk sëriñ bu xam boppam te yor daara yorin bu rafet maa ngi lay waatal si suñu borom ne bu ko jël tey bu ko jël ëllëg ma mbay ñaa am na lu mu wax xaw ma dafa juum xaw ma juum bu fekkee dafa juum nag jël leen ko mu ngeen xam ne seen seen seen wërsëg la bu dee rectifié wu ko ndaxte njuumte day am si jaam ji bu dee da ko tey wax ko ndaxte daf ne man samay njoboot ak lépp lu bokk si man du ko lekk di mais dinaa ko jox talibe yi sëriñ daara yi ñu jox ko seen taalibe ak ñi nga xam waaw néew doole man si man si ñu néew doole ak ñi ñàkk seen bakkan ci laa bokk man ñi ñàkk seen bakkan ci laa bokk mm-hmm. euh, ñi new doole ci laa bokk mm-hmm. ngir lan man bu ma ko joxee ma delloo ko ko lu mel ni lu mel ne noonu sax du dugg sama kër ndax sama kër dama ko organiser ba mu baax nitu caaxaan du dugg sama kër kon dèjà Mame Mbaye foofu dafa juum ou juumut loolu moom moo xam Ousmane Sonko fu mu tooñee man duma